bari na koy wax te ni géwél juddoo juddoo wu ni géwél dafa bari jomm jomm ak deret géwél géwél géwél dëgg dëgg dëgg doo ko man du takk sax ku dul géwél baa du ko may doom yow bu la géer ñooy ñaan doom dangay ngay lànk géer ña ba ba tudd naaj doo may sa doom géer déedéet kilifa ñaan na ma ko ma lànk xam naa sama sëriñ ko mujj may sëñ Cheikh sëñ Abdou Khadre waaye damaa la doo takkit géer. déedéet. waaye léegi Abdoulaye Mbaye Pekh ñun Sénégal ndax waruñu weesu loolu ñu dem ba euh, tey ñu gëm ni ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay. waaye ñu eh, bari dañoo xeeb géwél te waruñu koo ah, may sa may sa doom géwél bii pourquoi. mais mais sëriñ si. boo xoolee ñoom takk ñu ay géwël ñu leen ay doom. Euh, waaw géwél yi sëriñ si. waaw ñu ci bëri ñu takk géwél yi. déedéet tey tey ñi ñi ñi sànc laa la wax yoon yi. ñu mel ni ñoom sëriñ Bamba ñoom Cheikh Sidi Hadj Malick ñooñu ñooñu nag dañoo xam seeni bopp. amoo ni géwél pire parce que soxna dafa mat sa seet. waaye de koo ci foog koo ci foog guddi géwél a ngi ci wetam. waaye takk ñu may ñu géwal seen doom waaw la leen géwal di wax da leen a neex géwal ba boppam rek alors mooy noonu euh, euh, diggante ki nga xam ne mooy Tunkara ki nga xam ne ni mooy euh, Mbaye Pékh ñoom ñaar seen waxtaan bi gis na Sénégal yi fu mu toll ni ñu bëri moom la ñuy wax foo dem lan naa la Mbaye Pékh nee na du doom du may ki nga xam ne ni mooy doomam géwal géer waaye tamit moom du mës sa takk li nga xam ne mooy géer euh, expli jox na joxe naa explication nag nee na parce que ñi di géer yi ñoom dañoo xeeb géwél yi je crois que loolu moom amatul Sénégal peut-être bu njëkk ba doon mais maintenant ce n'est plus le parce que fii ku nekk am nga maanaam li nga xam ne nii géwél géer nekk sa xarit wala géer géwél nekk sa xarit wala lawbe wala leneen leneen et cetera euh, pour firndeel na rek Ousmane a ngi nii Ousmane géwél nga la man géer laa ma xaw ma sax yooyu nanaa mi géer la hmm. ñoo ngi bokk plateau bi. nanaa mi géwél la. Hmm. d' accord moom noonu donc pourquoi ñu bëgg indi yenn débat yi nga xam ne dafa sensible comme sànq affaire de xeet affaire yenn mu sensible woon bii tamit nee na noonu la sensibiliser donc je crois bien que moom sunu maam. am na benn responsabilité boo xam ne da ko am Sénégal Sénégal am fu ko teg donc am na yenn kàddu yoo xam ne peut-être bi nga koy génnee euh, war nañ ko xoolaat bu baax a baax a baax Ousmane. waaw. Euh, kon fu mu ne nii théâtre bete bete may nañ leen ndam. dëgg la. voilà sànq sama xees loo njëkk dem. dëgg la kon bete bete biñ fiy def seeni casting ba def seeni théâtre mhm. gars yi di jaay làmmiñ gu rëy ku nekk di bëgg a wax firnde yaa ngi nii réalité boobu mu ngi am ba léegi moom buñ naxante waay c'est un plus un égale deux daay jomb facile même Ablaye Mbaye Peex bu mayul doomam géer moo xam bu leen bëggut moo xam bëgg na leen ndax tey jii man damay diiñ su ma tam may giir sama doom bu ma mayee du ma ko jël xaalis vraiment su ma joxee tissu du ma jël su ma invité du ma dem waaye yow tey yàlla bu dogalee nga ni duma may nangam nangam nangam nangam nangam nangam ñoom ñu ngi dëkk ci di la teral kon yaay jaam. souvent yaay baadoo la. bu la xamee ñoom ñoo xam la. déggoo li ma la xam ak ñàkk xam moom dama lay wax lu correct. lu terre à terre. moo di sama géer. di sama nit su ma jaaxlee daw ci moomu su ma bëggee woo ko bu ma xewlee woo ko nattu ñëw moomu dugg sama kër gis fa sama doom wala sama jarbaatub géwél cofeel daw moomu bu ko ñaan ma ne duma ko ko may waxuma dëgg damay fen ndax naa ko may ndax alal mm-hmm. même bu ma ko ko mayoon ngir xol naa ko may ngir alal balaa nga ko doon xam tubaab dugg ci kër gaa ki miliyaaram boobu dañuy fàtte géwél ak géer man daal moomoo ku ma mënta may sama doom wala sama deret du ma lekk sa alal waaw ah. ku ma ku ma ku ma ku ma sañta jël sama askan parce que mu ngi lay jox looy dundee muy daw ci sa deret kon koo koy sa deret waaw mu ngi lay jox nga lekk naan jox sa njaboot ñu lekk moom dundal na leen kon mooy seen deret ndax lim leen jox ba ngeen di lekk yéen a ngi circulé yéen la. te ANSBT sax bu ngeen lekk mu am na nekk ay nit tuuti des fois nag wax daf nuy pël ba dañuy wax yu ëpp. wala ñàkk loo def tamit benn rek bu dee Tunkara mu ngi prox ndol moom dafa bëgg yooyu ma wax ko ne moom Tunkara li mu wax waxul dëgg. du wax ci sëriñ ci sëriñ si taf taf moom dafa bëgg yooyu noonu la mel waxul dëgg du ma cité ay njabootu Cheikh Ahmadou Kara di leen cattu. macha allah. Omar Seck l'esclave de Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni noonu la tuddee boppam. doomu Cheikh Modou Kara lay sëyal muy soxna men Mbacké ñu am ci ñaari doom géwél la. Tunkara ko dugg te tudduma so te wax waxuma soxna may waxuma umul xayri te ñoom ñëpp ay géwél la ñu séyal te ay taalibi sëriñ bi te nag ci saayir am am gi sax demeewut noonu ah, kooku sëriñ bi la du eh Kara laa laa cité ndax moom laa xam demal kër sëriñ Afia billaahi maanaam nañ maanaam maanaam nañ nekk ay nit ñoom ñiy wax des fois dañuy indi yoo xamante ni pour jéem a ay nangam sangam ay bu dee sëriñ si de du ay fen la. du dëgg keneen wax si kaw loolu dëgg. doomu sëriñ Abdul Aziz baax mu nga Fatick di seeg sëriñ Cheikh Ngom jàngalekatu daara géwél la. Mhm. géwél pur et dur. ni ñuy def di tas Sénégal di wax. maanaam. am na ku nekk si ligne bi même tuuti après ñu daal di koy réglé. allo fo foofu nga teg sa baaraam baax na trop. salaamaaleykum. waaw mu ñëw noo def. sant yàlla bu baax a baax yaa ngi cool. ça va. alhamdulilah noo def. oui Marie. ça va si loo ne. maa ngi nii rek yaa ngi ci jaam. ça va alhamdulilah. alhamdulilah Ousmane. ñu ziar baax yaa Marie. Aliou Nooré nuyu naa la ziare la. warmal naa la bu baax a baax jërëjëfati. maa ngi jéggalu xaw ma nag foo leen toll mais si Ablaye Mbaye Péex laa yem. Hmm. defe naa mun naa dem. acca si lool la ñuy waxtaanee. si loolu la ñuy toll nii. voilà merci beaucoup kon. acca Ablaye Mbaye Péex télé moo toog rek mais moom xam na ne kër sëriñ si am na ñoo xam ne géwél lañ takk bëgguma cité ay tur. Hmm. am na ñoo xam ne la muy Touba di Tiwaawan ma tudd nag turu kenn. bu ñaseen bii këri diina yëpp am na ñoo xam ne seen kilifa géwél la takk seeni doom ay géwél lañ takk gis nga ni sungunu joué ñu ko doon diingat boobu ñu bari xamuñ woon ne ci bind bi ñeeño la gis nga fii ñàkk wax ak bañ a wax a fi am mhm. ku nekk li nga nañ si nekk dafa nekk ay dossier yoo xam ne dafa sensible trop mhm. dafa nekk ay dossiers yu sensible yoo xam ne euh, bëgguma ci wax di citer ay noms. d'accord mais li mu wax noonu noonu am na géwél yoo xam ne loolu la ñuy dund. Mm-hmm. am na ñooñu yoo xam ne loolu la ñuy am na géer yoo xam ne loolu la ñuy dund. Mm-hmm. musumul wax lu gën a pii lu gën a pii sax lañ lay wax. Mm-hmm. bu la benn kii bi seet seet. dëgg la ñuy ci ñaari côté yépp am na nag ñoo xam ne ñoom gënuñu loolu. man mënuma imaginer nga ne bëggoo gële bëggoo ñeeño bëggoo géer bëggoo eh, lawbe te tubaab bu xonk tur day jógee fële man gis naa doomu imaam boo xam ne tubaab lay sëy te tey jii bu ñeeño ñëwoon di nga ñaan si mu nga déedéet te ñaari doomam te ñaari doomam ñu sëy si tubaab mhm. tubaab yoo xam ne dañuy ñëw ne la damaa tuub bu ñu la fële kon ne seen religion am na la ñu siy tuub ñu dëgg mais am na ñoo xam ne ñuy tuub gëmuñ ko parce que dañ leen ci forcé mhm. ñun daal sénégalais war nañoo xoolaat bu baax a baax a baax suñu toogaay. d'accord parce que li ñuy def gëmuñ ci dara dara dara parce que dañuy jël benn affaire di ko politiquer xam nga affaire bi diine tam dafa sensible. Mhm. Cheikh Omar Diagne mi ñuy wax. Mhm. jullit la kii la man défendre ma ko. parce que boo xoon lu jaadu man naa jëkk a dal ci kawam. ñun jullit ñi doon jàng xasaay ci sëñ Tuubaa du benn du ñaar ci kaso bi nit ñi xam ko mu wax loo xam ne si ay supérieur lañ njëkkoon wala ñooroon njëkk a daane ñoom la ñooroon njëkk a wax mais ñu jël benn nit rek bëgg ko di wax yoo xam ne gis nga nit balaa nga wax da ngay gëstu bu baax man bëgguma di wax lu ma xamul mm-hmm. mais Sénégal moo metti d'accord vraiment vraiment ñun daal yàlla nañu yàlla dolli sutura ko yërëm yi. amiin merci na waar maa ngi jégalu bu baax na laa présenté wu ma sax man na Marie bu maam da baax. man la Marie Thiam bu maam da baax maa ngi jégalu. jërëjëf jërëjëf merci. maa ngi jégalu parce que dañuy laaj dañuy laal dossier sensible. c'est ça. merci beaucoup mais na waar moom moom xam na ne am na doom sëriñam bu takk jiwel mënu ko wax si télé bi mais xam na ko merci beaucoup. maa ngi jéggalu waay yaa ngi woon fu am solo sax daanaka fi ma nekkoon mhm. moom rek la ñëw confirmer ah la moom dafa ne du cité man xam nga lu tax ma tudd sama sëriñ cité mhm. Mhm. dafa am am na it sunu yaay ji génn àdduna soxna Xadi Mbàkke rakki Cheikh Ahmadou Kara Mbàkke noonu ba mu tollee ci am borom kër xam nga kañ leen ko may sàmb lan la sàmb sàmb géwël la papa Abou Sàmb Mhm. te du géwél bu mag du géwél bu ndaw du géwél bu digg doom géwél bu rëtatoo la mooy bu du may toq géwél mhm. te bizarrement géwél gi mu doon soxna Xadi ndeysaan yaay jërëjëf Mbàkke yàlla na àjjana di sa kër doom yi sëñ Ousmane ak maam Marème boo leen gisee dun ngaan mais koo ci làngal da ree da ngay xam ni ñuy éggéwél la. ndeysaan macha allah suuf dafa neex maanaam du du du wax. Mm-hmm. mais moom moo ngeen sekk waxtaan yow yaay bërëngu parce que ay ay ay virgule am la yor da taxaw ngay dem mu ne nii. neexu ngeen. Mm-hmm. sànq ma tuddal la Cheikh Ahmadou Kara xam tax ma sañ ko fa laa jokk yaakaar fa te fa laa ko gisee ñett leeram. Mm-hmm, macha allah. ku may sama nijaay man sama nijaay lu doon. piir géwél la mën a doon de muy Serigne Cheikh Ngom di jàngale daara ca Fatick. Mhm. doomu ma Abdou Aziz Sy Dabakh rakki Serigne Ousmane moom lay séyal ca Fatick demal. Mhm. maanaam bu jël suñu esprit yi di ko fowee ngir yàlla ak yonent bi boo invité nit invité ko bu waxee ay balam moom nag maa ko cité ba mu yow dafa bugg yooyu. Mhm. naturellement ku koy yàgg suivre ci game boobu sax lay bëgg a ne wala nga wax li mu a la fu ko yàlla wax looy def pour déedéet man xam nga lu ma bëgg moo tax Pape Cheikh Diallo daal jërëjëf. am mhm. na la yàlla lafal cat. Mhm. laa fi gis. Abba No Stress. DJ ñoo lay dalal di la di la jox sa valeur. maanaam dalal la maanaam di la yëkkati. pour nga am valeur. mais ñu ci bëri xam nga lu tax sax lematuñ invitation. Hmm. da nga leen dañ lay invité bëgg bëgg nga def musiba wala wax musiba wala di la poser question musiba. Hmm. te rafetut. Hmm. mooy li ma doon wax léegi nii de rafetul moom moo fël sama génne. Ah, rafetul. maanaam nit ki boo ko invité ba mu toog. fexeel fexeel nit ñi bëgg ko. fexeel mu siggi. fexeel mu sagg waxal ko yu baaxam. nëbbal ko ay ayibam bu ko amee. waaw ah, loolu daal laa laa ci laa gëm man. merci beaucoup Ouz Euh, mu doon li nga xam ne lu am solo la alors nañ jàll si li nga xam ne mooy nekk mi yaa gisee. moom tamit yàlla tere. lu tax loolu. ah demoo ko. laay dégg accéléré cadence bi dawal laay accéléré cadence mënul nekk de. as ñëwal da ko ci yàlla <laughs> ah, ah, nga xam ne dama cee war a wax. <laughs> dama cee war a wax waxul dee la laa. gis nga Noreyni fi mu daanelee fa ñëwee. Mm-hmm. di jaajëfalaat bu baax a baax Marie Pierre Thiam merci beaucoup fidèle internaute la euh, di ko jaajëfal bu baax a baax soppey maam da baax bi. Mhm. Euh, Nouré ni dafa daanale fa am solo euh, te sànq ma yëkkati woon ko muy y animateur des wala doo leen sax xam noo leen di tuddee. Mhm. ñoo xamante ni suñ la invité yooyu ñu ngi xool loola déstabiliser wala yow loo wax ba déstabiliser ñi ngay waxal. Mhm. waaye Nouré ni man soo doonee ku mel noonu. boo ma invité ma xam la may wax woddu samay kàddu parce que wax bal la bu génnee dafay gaañ mm-hmm. woykat ba ne seet naa seet gisuma technicien moom wax mm-hmm. kenn mënu koo defaraat bi ci topp mooy yow nga doon quelqu'un ci réew mi doon giwal ku jóg nga ne ko sama géer nga taxaw ci télé bu ñëpp di seetaan ne du ma yëkkati sama doom may ko géer wax bu wax bu ñaaw wax bu salte wax bu tilim wax bu bon boo xamante ni man bett na ma ci ku mel ni mbay peex man daf maa bett xam nga lu tax mu bett ma saa boo jógee yaa ngi naan Cheikh Amadou Bamba Cheikh Abdou Lahad ñoom day li nga wax nii jëfe wuñ ko parce que alxuraanul karim la ñuy jëfe te amul benn yoon ñun jànguñu de suñu jàngu soriwul waaye amul benn yoon fu yàlla bindee ni géer gi daa war a sëy ak géer gi géwél gi daa war a sëy ak géwél gi amul it fu yàlla ne géwél gi daa war a xeeb wala géer gi daa war a xeeb ñeeño bi amul de man de dégguma ci ku ku ustaas bu ko wax wala imaam bu ñuy bu ñuy xutba ba wax ko nañu nañu nañu nañu xamaat fu ñuy teg suñu tànk bu baax a baax mënoo ni man damaa yaakaar cheikhul xaddim ba noppi doo jëf jëfi seexul xaddim wala doo jox ci ay tànkam loolu mënul nekk man li tax mu bett ma loolu ci la bokk mais li tax mu bett ma itam bokk na ci yow nga doon mag doon porteur de voix mm-hmm. nekk ci chaîne télévision bu mag yàgg di xamle yàgg di jàngale yàgg di dem ci conférence yeeg ci xew yi ba noppi taxaw fu ñëpp di la seetaanee ci pénc mi naan duma may sama doom géer mais oh, déjà yow Aïcha demal dafa jàpp ni peut-être mhm. euh, bu leen géer yi mhm. dañoo xeeb géwél yi moo tax maanaam du leen ko may déjà moom foo laa doon ñëw de déjà yow dangaa lu sa bopp yow xam nga xeeblu sa bopp gi mooy lan nóoree ni sunu ñu ne ko muy yow ñi ngay xeeb wala nga jàpp ni ñoom dañ laa xeeb saa boo xëyee yaa ngi dem ci ñoom di wut ci ñoom dara dara soit mbase buñ la jox. boo ci gis ne waa waa jàngi. waa yére buñ la jox waaw. di tàllal loxo naan buñ la jox wala dàll buñ la jox wala koppar yu ñu la jox te yow nga ne ñooñu dañ laa xeeb moomoo démb damaa toog fii xuma bëgg démb euh, ci biir énision lu bees ma ne la boo yëkkatee sa loxo ne faalewu ma kenn yëkkatil bi ci des ne kenn faalewu ma. fii àdduna la fii Sénégal la nit ki su la yitteewul euh, ñoroo ko mu xeeb la yow it fexeel ba bul dem ci moom te it bul wax ay waxam est-ce que dégg nga ma ñàkk ñàkk wormaal sa bopp bokk na ci euh, xeet wii dañu maa xeeb duma leen may sama doom xeet wi dañu ma xeeb te saa bu nu xëyee di la fa gis di la fa dégg yow géer ñi rek ngay àndal yow géer ngay sagoo yow géer ñi ñoo la def li nga doon ginnaaw yàlla. ñoo lay jox ngay te nii noonu te bi ci topp mooy. erreur de gis nga yàlla nañu yàlla may ay mag yi boroom xam-xam. ndax loo wax mu doon xam-xam waaye loo wax nit dar gémmiñam loo wax mu mu gaañ nit ki wala mu vexé ko man géwal naa géer laay sëyal mm-hmm. barke Sëriñ Bamba mu nopp ma lool ma nopp ko lool. Mm-hmm. ñu bëggante pire te géer la gu set wecc may géwal gu set wecc Sëriñ Bamba. billaahi. indi bële. <laughs> noo leen na waa fenn. waaw yaa may dee. man li may gis nii génn bu set rek ñëpp ñu kon yow wax daa touché laa indi dafa ma. xam xam lu tax mu touché ma. ou oh. de ni mu la gisee rek la lay ëwalee. ngir yàlla non non sérieusement man dinaa. sérieusement man dinaa amul problème gudd gudd gudd gaynde mhm. pour mu nangu wax yaa may dégg. d'accord xamul tamit gis ci sama bopp mën na. uude euh. lim la gisee rek la ëwalee. la nga def ci géer ña ba ñu xeeb la yow yaa ko xam. Mhm. fii ku ñu fi xeeb yaa def lu nu la xeebee. Mhm. ñu fi xeeb yow yaa def lu nu la xeebee. géer ñaa ngi may seeni doom ay géwël ñu baax ñi nag laa wax géwël yaa ngi may géer ñi seeni doom njaboot gi du juddu ñu yokk xeetu Seydina Muhammad fii amul bàmmee balaa nga ko doon xam yow déjà yow kenn xamul sa tey kenn xamul sa ëllëg waaye wolof day wax ni ku dee mag dee ku deewul mag dee hmm. nga toog ci télé bu ne fàng doon magum jëm léegi nanaa ma borox ndoon tuuti ay ca buñ la xeeboon mm-hmm. danga ko wax naruma ko woon wax mm-hmm. ndax ngëm-ngëm dafa jege waaw dangay mbubboo nga mhm. koy tiitaroo muy ilimaane tey ak ëllëg. wallaahi Cheikh Abdoulaye Mbacke ah Cheikh dañuy taxaw naan leen balay sa buri sëriñ Mbacke maaram. mamastawaalu mm. mi ci naaweel dëgg la ma gi di wax di dem. Mm-hmm. di leen kañ. Mm-hmm. di leen sagal. Mm-hmm. di leen siggil ndax ñoom suñuy géer lañ. dëgg la. waaye yow ay géer bu ñu la xeeboon di nga leen waxal kàddu mm-hmm. bu ñu la xeeboon bis dina am mm-hmm. ñooñu dajaloo ne la demoon ñu fii kàddu gi ñoo ko wax nga waxal ñu ko wax dëgg yàlla papa juum nga daa juum moo tax moo tax ma ne yàlla nañu yàlla may ay magi boroom xam-xam xam nga lu tax lu xale bi doon wax naan magum jëm magum xel moo gën magum jëm waaw magum xel moo gën magum jëm pire yow nga doon nga doon magum jëm. am boo paree ñi nekk ci seen bi ziar lan nga ñu doog a wax leneen. yow yaa ngi ziar waaw magum mag ñu doon hmm. magum jëm. nga doon magum jëm toog ci télé bu ñëpp xam non mais sérieusement di wax loo xamante ni yow amul bopp amul génn du ma may sama doom génn ba mayul sa doom génn